Euh, da leen a jàmm mbokki internet yi nga xam ne yéen a ngi doon bàyyi xel euh, ci euh, Yatal Vision lu ñeel nag mbirum combat Balla Gaye Boy Niang la ca jot a xew niki nag ki nga xamante ne bii nag mooy Boy Niang ak Balla Gaye ñoom nag ñu dox di wër li nga xamante ne bii mooy digg géew bi waaye it ki nga xamante ne bii mooy Yankhoba Diattara di ministre des sports ci biir réew mi di Sénégal moom it yegg si na ci biir li nga xamante ne mooy stade bi waaye it ñuy xaar niki ay invité waaye ñuy xaar. nag ñi nga xamante ne bi ñoom lañ tuddee li nga xam ne mooy drapeau bii di Boy Niang ak Balla ni ko noonu nag ki nga xamante ne bi mooy Lac de Guiers numéro 2 si na ànd na ki nga xamante ne bi mooy Balla Gaye 2 waaye ki nga xam ne mooy Sa Thiès it moom it yegg si na léegi ànd ki nga xamante ne mooy Balla Gaye noonu nag kii di Boy Niang it ay àndandoo moom it tey ñëpp yegg si na ngir ànd ak moom ngir combat bi man na daal di neex li nga xamante ne bi nag moo ci xamagul ni ab sëgg yegg si ci benn yoon waaye ki nga xamante ne bi